alors internet yi mu ngi noonu comme ni ma leen ko waxee woon ki ma taxawal nag yaakaar naa ne xàmmee ngeen ko bu baax a baax kon jarul ma leen koy présenté dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyoo ak yéen ma posé ko tuuti question rek mama wala Rocky Daba ban nga ciy préféré maa ngi lay nuyu. <laughs> que du ma jël Rocky bi parce que gars yi léegi dem naa ba dootuma déggati sama tur sax Rocky Daba rek laay dégg waaw waaw. ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak internet yi. Euh, donc leen wax asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal seen teewaay aussi. parce que rafetlu nañ ko béréb euh, maanaam mbir bu xewee nii dañ si dañ leen ciy soxla ngeen di ñëw di génne yenn yi yi nëbbu woon ngeen di ko luqati xam nga loolu yéen donga ko da ciy baax daal. waaw noonu yaa ma gën a euh, fekk la fii euh, ndax mënoon nañoo xam li waral sa teewaay tey ci bi. waaw festivalu Maam moom xam naa ku ko xamul dégg nga ko mu nekk festival boo xam ne c'est de renommée internationale sax laa mën a wax parce que yamul rek Dakar waaw donc fépp la. ñëpp lay touché di touché artiste yëpp donc képp koy artiste comédien ak loo mënti doon ça te touche donc loolu doo nga taw waraloon suñu teewaay fi ñun ñëpp boo xoolee xam ni artistes yi bari nañ fi waaw artiste bu dul artiste du yaa ngi fi waaw lépp ci festival Keppaaru Maam rek liñ naan aar bi dafa yaatu tey moom dëggal na ko macha allah alors nag euh, depuis boobu yow yaa ngi fi gis nga gars yi ni ñu se wuyusee Ibrahima Mbaye Sopé ndax mën nañ xam yow lan moo nekk sa diggante ak moom waaw loolu suma ko fee rax nga naan fi la ñuy fanaan <laughs> da ngay da ngay ñamal sooy tuuti. te ma bàyyi tafaa wax rek ndax loolu yaakaar naa suma ko fi dee wax fi lañuy ñuy fanaan de. <laughs> kon donc dañuy jox Tafa kàddu gi ah, Tafa moom nga alors mu ngi noonu ah Tafa Seck Tafa yow maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo. waaw asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu mbokk internet yi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar waa ñu ngi fii ci festival kepaaru Maam comme ni nga ko waxee Ibrahima Mbaye moom li mama wax rek la ñuy dëggal quoi wax ci moom day xaw a jafe. soppe dafa wuyoo turam quoi bi mu ne soppe rek la nekk soppe ñëpp boo gisee festival bi àdduna ñu ngi fi artiste bu la réer mu ngi fi te nit moom sa jëf rek moo lay wuy si quoi noonu la mel ak ñëpp ñëpp ñëpp amewul xaaj ak seen amul ak kenn problème man mën naa wax loolu quoi Ibrahima Mbaye soppe waaw te li mu am théâtre daf koo gënal lépp quoi kon lii du chance mérite la bu wootee ñëpp ñëw rek dañoo war a ñëw moo tax ñu ñëw quoi bu wootee ñëpp ñëw dangeen a war a ñëw moo tax ngeen ñëw macha allah kàddu yi rafet na lool alors Tafa euh, soppe lan nga koy wax tey boo ko doon dolli par rapport ak ni mu mel woote ñëpp wuyu si la xam nga ni du lu yomb tey soo ko doon dolli loo koy dolli. waaw dolli soppe tuuti nañ ci xaw nañ ci tuuti mais olof yi dañuy lu mag def mu jikko bu mu ko bàyyee fi mu teg tànkam bu mu ko teggi mooy li mu koy wax mooy fu mu teg tànkam bu mu ko teggi et na gën a jàpp artistes yi donte jàpp na leen xam nañ ne artistes ñoo mbokkam. ndax fii boo limee ñi fi teew ñu bay artiste kon soppe yaakaar naa dolli ko xam na li mu war a def quoi xam na li mu war a def d'abord te doomu aadama boo xamee li nga war a def def ko rek yaakaar naa dolli la day doon affaire waane wala quelque chose comme ça ñim jàppoon démb jàpp leen tey ba tey mu ànd ak ñoom gisuma ñu changé gisuma mu soppi ci kenn gisuma mu wàññi ci kenn organisation boo fi ñëwee ñu ngi fi fekk nga fi fekk ñi ko jiite ñoo ko jiite moom tamit ni mel la mel ndax daf da cee jiital social mu ngi noonu jëm dèjà ci prison bi nga xam ne fa la jigéen ñi nekk mu ngi noonu di yóbbu ay don pour may leen ko et tout te loolu nekk na geste boo xamante ni ñaan googu bu ko toppee rek mën na arrivé ci lépp lu mu bëgg a def te loolu quelque chose boo xamante ni daf ñuy marqué ñun ñëpp daf ñuy marqué nekk na festival boo xam ne tamit ñi nekk foofu nekk ci ay jafe-jafe leen fi tëj ñooñu ko gën a yàkkamti kon ñaan yooyu bu ko toppee rek jaratul muy kii quoi tey bi am na ngërëmul ndey am na kënëmal bàyyi am na lépp daal soppe daal macha allah li ñuy ñaan mooy laf cat laf cat cat dafa gaaw waaw nañ ci cat rus ñu loolu la ñuy na nañ ci cat rus daal. amiin waaye na leen ci cat rus alors dafa ma bàyyi leen daal dugg ci biir rek xool yeneen gars yi ñoom it ma dékk leen sama micro rek sekk ak ñoom ci waxtaan bokkar ñu dem.